mbokk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 Euh, bàyyi ko mu nuyu mbokk internet di su ko defee ñu wéyal waxtaan bi Pierre maa lay nuyu. waa jërëjëf maa auzu billaahi min sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yàlla na yàlla defal ñu sutura ak muj gu rafet gudd fan ko ànd ak wér ak wérle yàlla yàlla saxal ñu ci diine jéggal ñu suñuy njuumte ah, li ñu baax la yàlla nañ ko yàlla fulandi li ñu juumle yàlla nañ ko yàlla jéggal parce que addina moom ay njuumteeg ay dëgg dëgg lu nee ngi fi waaye na comme ay doomu aadama la al insaan moom mooy ni ko matul rek kuy fàtte. kon nag maa ngi nuyu ñëpp di nuy waa internet di nga xam ne nag ñu ngi jëf saxoo safoo di seetaan wasaare. di ko bëggee maa ngi leen tàllal loxo di leen nuyu di ñaan sama kàddu yàlla na fekk leen yéen ñëpp ci jàmm. ku ci am tiis yàlla na ko yàlla teggi. ku ci am ñàkk yàlla na yàlla diisal say poos. te mu lew doom nag. bi barakatu rasulallah parce que lekk alal ju lewul da lay sonal rek. kon nag yàlla nañu yàlla defal sutura ñuy lekk lu lew. jërëjëf maa ngi lay ziar di kontaan trop tamit eh, ngeen ñëw fii ci kër gi ñu toog di def ay émission loolu it bégte la waaye nag tuuti am jafe-jafe bu ndaw rek la mooy xam xam naa léeg dama amoon tuuti teq-teq rek moo tax defewuñ ko bureau ba ñu ñëw fii ci kër gi waaw mais yëpp jàmm la rek waaw nañ sant yàlla rek alhamdulilah rabbil alamin eh, nag dama bëggoon ñu waxtaan ci ci làmb parce que bari na loo xamante ne duñ ko doon gi lu mel ni association des anciens gloires ak mbëri démb ak tey association des sages association yëpp ban moo ci jiitu ak lan moo ko waraloon. waa jërëjëf laaj nga ma lu rëy loo xam ne lii wax dëgg yàlla lu ma fekke la. Mm-hmm. parce que nit tamit bu fa wax parce que ñi ko fekke woon deewuñu ba jeex. Mm-hmm. ñi ma maaseel deewuñu baax ñi nga xam ne ñoo mag deewuñu ba jeex mm-hmm. ñëpp fekke nañu ñu bari fekke nañ ko ñi nga xam ne intéressé woon na leen dégg nga fekke woon nañ ko xam nañ it nañu demee. gis nga association bi nga xam ne moo fi jëkk taxaw. mooy association des anciens lutteurs. ne léegi nañ leen dem ñun suñu bopp bu ñu demee nañ leen nu ñuy amee xaalis ñu collecté collecté amuñu woon ba am ay trois cent mille ñu nañ leen jéem a tëgg làmb seet kenn ci ñun bëre ci ñun. jamono yi màng de daal di ne bon moom ci boppam ñu seet mu ne moom mën nañu bëri parce que boobu mànga mu ngi ci digg mbër gi. boo mànga am moom na tur. ñu ne léegi nañ ko utal adversaire bu kii rek boo xam ne bii du ci dépensé lu bari ñu ne nañ ko jox rajaxe mm-hmm. rajaxe moom daam seen la tuddoon mu nga dëkkoon fële euh, euh, kër sëñ Mbay Sarr fële ca njaareem mm-hmm. daan bëre mm-hmm. moom moo ñëw fi rek di di daan tuddee boppam rajaxe mais tudd woon sax rajaxe bi muy bëre waaw amoon na doom bu daan bëre sax daan ànd ak ba baabooy dafa gaañu teel a gaañu xale boo amoon avenir yàlla na ko yàlla yërëm ci booy boobu ñu di ñu fay màng de dégg mu bëri mu bëri rajaxe boobu ci stade ba maar Diop ca gazon ba ñu tëgg làmb ji ak ak ket yi ñu amoon ak yooyu bi ñu paree daal def suñu frais def suñu frais yëpp ñu dese ca euh, huit cent mille. huit cent mille yooyu keroog man mii ak ku ndam si yàlla si tubaabu joor ak Mbaye Guèye la Tigre de Fass bu seetaanee mbir mi dina xam ne li ma wax dëgg la ak ñu toog ak ñoom Amadou Kati ñu toog ñu ne nañ leen xaalis bi lañ leen ko dajale nañ ci seet am luñ ci jël jom joxe fële dem seet dem seeti dem dem ca jaxale ji ko ñu dem keroog waaw booy ñaa mi gaañu mm-hmm. ba ñu demee Thiès keroog sëñ Modou Kara nga fa woon toog ca penc ca ba mm-hmm. li may wax lu leer naññ la mm-hmm. ñu nga toog ca kan parce que nettali loo fekke moom moo gën a wóor waaye li na nettali sax man gàtt waaye loo fekke moom ndii moom maa ngi toog avant ñu dem nag dañu waxtaanoo ñaata lañ fay yóbbu dégg nga ñu ne waaw tubaabu joon dam si yàlla si ne nañ joxe trois cent mille yi bàyyi fi cinq ko defee ñuy tëggaay làmb yooyu man ne man ah, ku nekk joxe sa xalaat may leen man de d'accord ci loolu waaw comme booy ñaam moo dem si àll moo tax mu gaañ. Mm. lii la moom lañ ko doon collecteel ba yàlla yi génn na ci. nañ leen yóbbu huit cent nañ leen bu ñu mënta yóbbu lépp tamit nañ la yóbbu cinq cent mille yi bàyyi fi trois cent mille yi. Mm. bàyyi fi trois cent mille léegi léegi commencé di dajale mën mën a tëggat ay làmb euh, seet luñ dool dolli mais jël ay trois cent mille di fa joxe di cinq cinq cent mille man ànduma ci mbéy gi daal ma ciy fekk si yenn gars yi fekk si ma ci ñu daal dem nag ñu noonu la ñu demee daal dem ca jaxal dem jaxal loolu. daaxal fa cinq cent mille àddinay dox nag ñu commencé nag di ñëw di doxal groupe boobu mais tax ko woon a dox noonu nag waaw ku tax woon dox xam nga àndu mbëru mag rek àndu mbër rek si bopp laay sax muy dem di dem di dem di dem di dem ba ñoom Moustapha Gueye fël benn jour la jékki-jékki rek ma toog ci rajo Walfadjri rek dégg na ñoom dañoo formé association beneen association boobu waxoo ko sax association des lutteurs professionnels. benn jour lañ jékki-jékki rek ma toog ci rajo Walfadjri rek dégg na ñoom dañoo former association beneen association boobu waxoo ko waxoo sax association des lutteurs professionnels xam nga boobu tuddoo ko. association des lutteurs professionnels. dañ waaw ñoom Moustapha Guèye daal ñu former moom ak Tyson ak Yékini moom ah, moom booba Tyson génn. Hmm. moom Tyson ak Yékini déedéet déedéet Tyson la dégg nga ak Mohamed Ali ak Moustapha Guèye ak. Euh, ak quelques mbër daal ñooñu daal ñoo ñu ne nañu former association de lutteurs professionnels. Hmm. ñoom Moussa Gueye daal koy formé bi ñu formé loolu daal ma cee génne man génne ma ca ba ma set boo bàyyi gu ma bëri sax de ñu daal ma ca ba ñuy tudd tudd ci tudd ñu ma ca daal ma cee génne tubaab ak tubaabu joor ci la bokkoon te ñu boole tubaabu joor may leen yéen ñu coow ci coow lu bari parce que formé association daal jël ñii bàyyi ñii loolu mënut a nekk ma dugg ci wal Walfadjri bi ne leen euh, ma xuloo ci sax keroog coow naa ci ak Moustapha sax ma nekk ko Moustapha man sa mag laa Euh, cër bi ngay jox mbéy gee nga may jox mm. boo mënta jox bu copie da nga may jox bu ni toll mm-hmm. dama ne soo ma yëgee yëg naa la soo ma yëgul yëgu ma sax yaa ngi dox keroog lii laa ko tontu ci wal fajiri bi mm-hmm. parce que wax dëgg moom boo koy dee teg ci télé mm. di wax ci internet yi dax da ngay wax li am da nga koy wax ni ma am na xëy na lu ñaaw yoo xam ne du ma ko génne mais am na ci la ci dama lay wax la am mm. ma ne ko man sa mag laa ñu daal ma ne ko yéen da ngeen a yéen su fekkee da ngeen dem ba former association des lutteurs professionnels da ngeen di te association ngi fi woon association des anciens lutteurs ngi fi kay dañuy def assemblée générale résoudre boobu daaneel boobu. daaneel boobu bu ngeen daanelee boobu nag former association des lutteurs professionnels ñi bokk bàyyi yu bëri bokkatuñ fa ñi bokk bëree ñi nga xam ne toll nañ ci bëri nag ñu dem bokk ci lutteur professionnel. loolu ngeen waroon def ñu xuloo ci xuloo bu métti ci Walfadjri jamono Ndiaye Doss yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana Ndiaye Doss keroog moo démissionné moo moo dirigé émission boobu ci Walfadjri ba 11h la daan doon ba midi. ñu coowoo ci coowo ci coow après kat yi comme léegi ñoom formé nañ seen station boobu booba temps sel mu ngi leen di encore encouragé sel ak moo ak ñaa ñaa ngi koy nuyu ak ñaa ak ñoom Tyson nekk ci njëkk fël gi ñëw dégg nga ànd ak Moussa Gueye nekk ci moom it fin de carrière mooy jamono yooyu daje ak moom ak yooyu quoi ak ñoom moom daal dese carrière tuuti ak tubaabu joor ñu daal dem kati ci la ma kati woo Amadou Kati Diop maa ngi koy nuyu waxtu kati daal ne ma balaa maa taal sama moto dem ba foofu mu ne ma. dama bëggoon ñu waxtaan ma ne ma léegi dama bëggoon ñu former association des anciens lutteurs comme gars yi formé nañu as euh, benn groupe tuddee ko association des lutteurs professionnels léegi génn léegi nañ leen def leen nañ former association des anciens lutteurs